conseil économique social et environnemental ak institution bi ñu conseil des collectivités territoriales te ci mel député Benno Bokk Yakar yi nga xam ne ne ñoo majorité mécanique bi biir assemblée nationale Daldi di Banyal, koy bañal Daldi ba loolee daal di di président Bassirou Diomaye Faye daal dinay jël Akup ndogal ci ñaari institution yooyee ndogalu président Bassirou Diomaye Faye daal di jël jëmale ko ci ñaari institution yooyee moom mooy que ne daa amal akub décret daal di jëlee kiñ dippee Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne ne moom moo nekkoon présidente ci institution biñ dippe haut conseil des collectivités territoriales ci post boobe mu daan occupé waaye tamit kii di président Bassirou Diomaye fay jëloon na beneen décret daal di jëlee ci bopp institution bi ñu dippee conseil économique et environnemental président ba fa nekkoon te muy Abdoulaye Daouda Diallo donc kookee di président Bassirou Diomaye fay ginnaaw ba ko député Benno Bokk Yaakaar yi bañalee mu daal di supprimer ñaari institution yi nga xam ne ne moom mooy conseil économique social et environnemental waaye tamit haut euh, conseil des collectivités territoriales kookee daal dinay jël ndogal daal di jëlee président ak présidente yu nekkoon ci bopp njiitalu ñaari institution yooyee ci réew mi di Sénégal ginnaaw li ni mel ministre spécial di chef de l'État biñ dippee benn Talib saw yëkkati na ay kàddu dal di koy jëmale ci coow lu fi juboon ci màggal giñ génn te mu jëmoon ci gan yi nga xam ne ne dañoo bàyyeeko woon ci bitim réew ñëwoon màggal si te Serigne Cheikhouna Mbacké sàkku woon ci état bu Sénégal ngir ñu daldi leen di loger ci hôtel King Fahd Palace te loolee mujjul woon a antu ci li ni mel benn talib saw ne kiñ dippee Serigne Cheikhouna Mbacké te muy président de la commission extérieure du comité d'organisation di màggal ne kookee yemul woon rekk ci daldi sàkku ci état bu Sénégal ngir ñooñee daldi jël hôtel bi ñu dippee King Fahd Palace daldi fay fat ay gan yi nga xam ne dañoo bàyyeekoon bitim réew daldi ñëw màggal si ci réewu Sénégal waaye ne kookee daa tamit état bu Sénégal xaalis bu takkoo takku ndax ne kiñ dippee Serigne Cheikhouna Mbacké daa laajoon état bu bees bu fi daal di nekk ngir ñooñee daldi koy jébbal deux milliards de francs CFA ngir mu daal di mun a toppatoo gan yooyee nga xam ne ne dañoo bàyyeekoo woon bitim réew ñëwoon ci réewu senegal te màggal gi daldi koy sabab ginnaaw li ni mel premier ministre bii di Ousmane Sonko ginnaaw ba député Benno Bokk Yaakaar yi ci njiitalu kookee di Abdoul Mbow mi nga xamné né mom moy sen président du groupe parlementaire déposé akub motion de censure tek ko ci taabalu ki ñu dippee Amadou Mame Diop mi nga xamné né mom moy président de l'Assemblée nationale premier ministre bi di Ousmane Sonko yëkëti na ay cadeau dal di tëkku wa benno Bokk yaakar ak koké di Abdoul premier ministre bi di Ousmane Sonko tay ginnaaw ba mi amal akup réunion di jàkkaarloog ñuy liggéeyee biir primature yëkkati woon na ay kàddu daal di xamal waa Benno Bokk Yaakaar que ne seen motion de censure boobee ñu daal di dugal daal di koy teg ci taabalu kookee di Amadou Mame Diop mi nga xam ne ne moom mooy président de l'Assemblée nationale motion de censure boobee du mujj fenn ndax du antu tey du antu suba premier ministre bii di Ousmane Sonko ne lu sabab lu tax mu wax li ni mel moom mooy que ne buñ lancé procédure boobee ngir daal di amal akub motion de censure ne loole du mën a daal di antu fii ak le 12 di bés bi nga xam ne ne moom la kookee di président Bassirou Diomaye Faye di am sañ-sañu daal di dissoudre assemblée nationale te ne ginnaaw bés boobee képp ku bokk ci beneen parti politique bu dul Pastef bu lancé akub motion de censure biir assemblée nationale la moom mooy que ne kookee na daal di uuti beneen liggéey bu du nekk député ci réew mii di Sénégal la maanaam kii di président Bassirou Diomaye Faye dina daal di dissoudre assemblée nationale bu ko defee ñooñee lancé woon motion de censure boobee dinañ jóge biir assemblée nationale la ndax dinañ dissoudre assemblée nationale la ñu amalaat yeneen élection législative te lu leer ba am moom mooy que ne député yooye yëpp askan wi dinañ leen daal di mere te kenn dootu leen falati député ci réew mii di Sénégal ginnaaw li ni mel la ku def ab ñàngat daal di koy jëmale ci cinq mois yi nga xam ne ne régime bu bees bi daal dinañ koy am ci bopp réew mi dinga gis que ne régime bu bees bi ñoom ñoo gën a jànkonteel ak ay tolof-tolof ak i critique yuy bàyyeekoo ci ay médias que régime kookee di président Abdoulaye Wade ak régime kookee di président Macky Sall mbir moomee lu ko sabab nag moom mooy que ne président Abdoulaye Wade ak kookee di président Macky Sall ginnaaw bañ accès au pouvoir ci seen deux premiers mois yi dañ doon jot ay critiques yu taratar yu doon bàyyeekoo ci média local yi waaye ñooñee ngir ñu daal di dakkal critiques yooyee di doon bàyyeekoo ci média yi luñ amaloon moom mooy que ne dañoo owoon patron de presse yi daal di leen di jox xaalis ci suuf ñooñee commencé di leen di tàggal seeni maam di fësal seeni réalisation li ni mel moom moo sababoon régime kookee di Abdoulaye Wade ak régime kookee di président Macky Sall ginnaaw ba ñuy àgg seen cinquième mois ci bopp réew mi daal dinay fekk média yu nekkoon ci réewu Sénégal yépp di leen tàggal seeni maam ba noppi di fësal seen réalisation ba ñooñee seen gouvernance daal di estable ndax lu baax rek lañ doon fësal jëmale ko ci ñoom waaye kii di président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bu bees bi nga xam ne ne ci jub jubal jubbanti lañ oow askanu réewu Sénégal xalaatuñoo am approche boobee jëmale ko ci patron de presse yi wala benn journaliste buy yeewoo ci réewu Sénégal li ni mel nag moom moo dal di menacer intérêt wu yenn ci journaliste yi daal di menacer intérêt patron de presse yi loolee tamit moom moo sabab patron de presse yu bëri daal di activer seeni journaliste ak seeni chroniqueur ngir ñooñee suba ba ngoon ñuy jéem a daal di fexe di fësal lépp lu bon wala sax sos lu bon jëmale ko ci régime bu bees bi li lañ indiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah